dégg nga maanaam naka noonu yu jarru lañ koy jare aydan wa ayu fiilin bu mu ci fiil boo xam ne axirun xaraf wa mujj minhu ci moom alif la aw ni ki tey yarda yaxsha aw waawun wala muy yaa waaw ni ki yadacu aw yaa un wala muy yaa ni ki yarmi kooku fa urifa xame nañu ko maanaam tudde nañu ko mu'tal fiil moom it benn ci ñetti arab yu ci fiilul fiilul mu'tal lañ ko tudde fiil ju ràggu mujj lañ ko tudde su ko defee nag luy àttee nañ koy liraabe mu ni fal aw fal alifa jublul alif in wi fiihi maanaam dañu ko nasab ci ki la listixaara fal alif alif ga in wi fiihi nattale ca niyatu bu ñu ko waxee ci tasrif mooy taqdir fal alifa alifa in wi fiihi yéene ca maanaam nattale ca xayral jasmi lu dul mandarga jasam rek mandarga jasam moom dana la wax ni nga koy def léegi mu wax la ko ndax moom alif ak yaa ñoo ko bokk waaw ak yaa ñoo ko bokk waaw lu dul jasam da nga ko fay nattale te te mooy bu dee mandarga rafa bu dee mandarga nasab dañ ko fay nattale nga ne yaxsha ak lan yaxsha alif ga bu jëkk nattale nga ci ak dam bu ñaareel bi nattale nga ci ak fata mandarga jasam nag da nga koy dindi léegi mu la ko wa abdi feeñalal nasba ma axiruhu waawun wala yaaun ka yad'u wala yarmi wa asbi abdi feeñalal ay azhir nasba ma nasabu mu daare ma nga xam ne ka yad'u ma ngi mel ni yad'u waawa ca mujj yarmi yaa ca mujj kooku mandargaam nasab li xiffatihi te moo di fata li xiffati alaamati nasbi nga ni lan yad'uwa wala lan yarmiya dégg nga su ko defee nag wan wi nattaleel a raf a rafa fiihima ci yaar yooyu waaw ak yaa mandarga rafa mi dañ koy nattale da nga naan rek yad'u ak yarmi waaye doo wax yad'u ak yarmi yu loolu day diis rek moo tax lu néew a néew lañu ko dégg ci waxu arab dégg nañu gaa ida qultu ala alqalba yasluwu quyidat hawajisu la tanfakku tuxrihi bil wajdi loolu naadir la bu ñuy nettali kenn du ko roy te dafa diis bopp neexul sax tudd soo bëggoon wax yadda uwu ak yar mi yu day di war kon wan wi kon nattaleel al araf mandarga rafa fiihima ci seen kaw ndax dàmm gi day diis ci yooyu yaar ndax ñàkk sàdda gi muddul ànd gi muddul ànd ak sàdda moo ko tax a diis xarafu ràgg soo ko sàddaa mu am doole attan xaraka yëpp waxdif xadafal nag salaasahunna seen ñett ya yëpp mu jëli alif ga woon ca fiil ba mujj alif ni ki yas an boole koog li mujje waaw boole koog li mujje su ko defee jaasiman mbir nga waxdif xadafal salaasahunna seen seen ñetti xaraf alif waaw yaa bu mujjee ci fiil mu daarew na nga ko xadaf xaala kaw ni ka jaasiman ngay aji jasam soo ko defee taq di nga attan atte xukuman laasiman atte bu sax boo xam ne kenn du ko delloo nga ni lam yadau ak lam yaxsha ak lam yarmi su fekkee rafaa gi nag ñëw na ah nga nattale ko ci yaar yee nga nattale ko ci ci ci yett yëpp dégg nga su fekkee nasab gi dikk na nga nattale ko ci alif ga mu feeñ ca kaw waaw ak yaa su jasam gi dikkee ñoom ñett yëpp nga boole leen tag lam yadau lam yaxsha lam yarmi wal maarifati bunt bu ñuy bira jàngale lisimi nakira ak lisimi maarifa nakira mooy cosaan maarifa mooy far nin waxoon démb nakiratun qaabilu al muassira aw waaqiun mawqia ma qad dukira qaabilu al aji nangu al lisim ju nangu ku ca def baatu al te fekk al ja xaala kawnihi muassiran fihi taarif nga xam ne alja dana ko maarifaal kooku nakiratun mooy nakira lisim ju nangu nga dugal ci al ju koy maarifaal kooku mooy nakira dégg nga nikir rajulun bu la neexee indi al def ci nga ne ar rajulu waaja mu doon waaju ñu xam di maarifa kooku nakira aw waaqiun wala lisim ju tabbi mawqi ama qad dukira place loolu ñu tudd man koo remplacé am na ci lisim yoo xam ni dégg nga nanguwul al dégg nga te du tee
mu nekk nakira ndax dafa yor maanaam dafa toog palaasu lu nangu al ndaxte soo ne man mu nekk nakira mawsuul maanaam mu nekk man mu nekk nakira mawsuufa wala bu boobaa al du ko nangu te teewul nakira la te nanguwul al juy taasir ndaxte li annahu waaqiun mawqia insaanin soo ne marartu bi man muajibin laka marartu romb naa bi man ci kog xam nga ne nakira ana sifaam muajibin kuy aji yéem laka ñeel la man foofu du du du ismu mawsul di de bu doon ismu mawsul maarifa la waaye moom nakira mawsuufa la wala baatu ma nga ni marartu romb naa bi maa ci lëf lool mu'jibin lu di aji yéem la ka ñeel kon li an yooyu yaar nangu wuju al wala walakinahuma waaqiaani mawqia ma yaqbalu al li an man bi maana insaanin law qulta marartu bi insaanin mu'jibin lak mu taxaw mu daal di nangu al wala maa it bi maanaa cheyin soo noon nadartu ila cheyin mujibin laka kon chey cheyu baatu cheyu dañ koy taarifal ak al kon man nakira mawsuufa boobu ak ma nakira mawsuufa boobu nanguwuñu al juy taasir ak taarifal waaye teewul nakira lañ loolu mooy maanaam qaabilu al nakiratu nakira qaabilu al moo di aji nangu al du dëgg mën na nga nag comme nakiratun dañ koo nakiraal moom baatu nakiratun léegi qaabilu al mën nga koo def sa mubtada nga tàmbalee ci nga ne qaabilu al lisim ju nangu al xaala kawni al jamu asiran fihi taarifa di ko andil ak maarifaal kooku nakiratun mooy nakira aw waaqiun wala jeneen lisim ju mën a tabbi mawqi ama qad sukira place loolu nu wax loolu nu wax mooy danu ni lisim ju nangu al ni ki man ak ma wa xayruhu ludul yooyu ludul loolu doonul lu nangu al mënu la remplacer lu nangu al kooku maarifa la ne moom nag ay xeeti xeet la damir ni ki hum acrafu almacaarifi wa mudmarun acrafuha summa alalam dégg nga summa isharatun fa mawsulun dégg nga mutam hum ak mboolem damir yi maarifa la ndaxte doonul lu nangu al te remplacé wul lu nangu al wa zi ismul ishaara yëpp zi ismul ishaara lil muannas ni ki ngay waxee zil mar'atu wala zil naaqatu nga loolu nag yóbbaale na mboolem luy ismu ishaara maarifa wa hinda alamu jigéen la maanaam kon bépp alam maarifa la buy bu góor buy bu jigéen wabni sama doom lépp lu laaf maarifa ibnu nakira la war koon doon waaye ba mu laafee damiru mutakallim kon maarifa la mu yóbbu lépp lu laaf maarifa rek wal gulaam ak dégg nga mu yóbbu bépp lisim muhalla bi al boo xam ne dañu ko jox al juy taarifal ni ki al gulaamu xale ba walladi ak yëpp ismu mawsul maarifa xeetu maarifa yi ñoom la doon lépp walladi ismu mawsul nag ku ci yii nag ku ci ne tudd nañu li ko maarifaal waaye ladi ismu mawsul silaama ko maarifaal du alif ak laamam gi ndax li annahuma zaidataan alif ak laam ci ismu mawsul zaida la ay wala ko maarifaal mooy lan ndaxte dafa ne aljuy nangu mu asiran fihi taarif alji ci mawsul taasir jëriñu ci taarif zaida la fa wujuduhu kal adam dafa fekk kenn sañu koo xadaf bàyyi fi di kese rek ay kon lu maarifaal di la di xanaa déedéet dama la wax ni boo xadafoon alif ak laam gi looy dese la di kese la di kese ah yaari laama fi ne ladi dafa fee nekk di genn laam ñu dolli ci ali zaida nga ni alladi moo waral sa dagg yi ñu koy def fama li di xaybatin aw xuduri ka anta wahwa sammi bi damir léegi nag limoon na leen damir la jëkk a tuddoon la la jëkkoon tudd mu ni mu ni fama bépp lisim boo xam ne li di xaybatin dafa tegtale boroomuk faddu dafa boo ko déggee tur waxaa ni boroom nekku fa kooka damir la aw xudurin wala mu tegtale teew boo déggee tur wa rek xam ni ki ñuy borom tur woowu ma nga fa kooku damir la nde budul damir di lism zahir du tegtale ci yooyu yaar dara kat wa in kaana zahiru ismi zahir alxayba dëgg la zahiru lism zahir ni ki zaydin zahiru lafd bi day mel na nekku fi xëy na bu fi nekkoon nga ni ko yow waaye teewul nag fi lxaqiqa yooyu yaar tegtaluwu ca dara maanaam lam yuuda lil xayba lil xaybati wala lil xudur lisin bu fekkee wudia lil xayba wala lil xudur damir rek la bu dee xayba ni ki huwa bu dee xudur imma lil mutakallim aw lil muxaatab kii addu ak ki muy waxal ñoom ñëpp a nga fa lu dëgg kon soo nee huwa damir la ndax xayba la tegtale ku ko dégg xam ni koom kooku day nekku fa kii mu naan moom bu ne man ñu ne ah ma nga fa teew de soo ne yow ñu ne kookoot ma nga fa teew man ak yow ay tur la yoo xam ne ku ne ak nit a ko moom waaye te it dañuy dégg aywa kon lu tegtale xayba wala xodoor sàmmi tuddee ko bi damir damir nag ñaari xaaj la am na muttasil am munfasil wañu tisaalin boroomuk jokk bi ñu tudde damir muttasil boroomuk jokk minhu ci damir maa mooy damir ba nga xam ni laa yubtada u deeful tàmbale ko dégg nga defu ko mën def mubtada damir bu ñuy def mubtada foo ko fekk munfasil la ni ki huwa waaye boo xam ne kenn mënu koo def mubtada wala yalidu topp ci illa baatu illa abadan faw ixtiyaaran ci coobare su ca toppee daal lor waye ko yóbbee kooka kat waaye bu doon dafay wesar wayul amul ci ixtiyaaram kon illa du mën a topp ci illa damir boo xam ne mënul doon mubtada mukk mënul a topp ci illa lu dul boog xanaa ndar waye ko yóbbante dégg nga de ni ki illaa ki dayyaaru nu mu ko waxee woy ba ba tey min fiatin baxat alayya fa maa li awdu illaa hu hu jooju kooku topp gi mu topp ci illaa daruura la dégg nga looloo tax waaye warul woon topp ci illaa hu moom damir muttasil la ñu ngi niki darabtuhu wala raaytuhu dëgg wala muy mudaaf gulaamuhu waaye topp ci illaa mënu ko mënu la doon mubtada kenn mënu la topp ni hu rek kooku kon foofu topp na ci waaye itam mook boytawale ñooyam وما أبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار بما فعل سفكي خسنا دكاغنون ak ñàkk dëkku kenn ñàkk dëkk ak noonu faaleetuma ko doy nga illaa ki kaaf googu kaaf muttasil la doon mënul doon mubtad topp gee mu topp ci illaa it du ixtiyaar daroo la kon kooku mooy muttasil maa laa yubtada wala yali illa ixtiyaaran abada loolu niki lan kal yaa i niki yaa wal kaafi ak kaaf yaari damir yooyu min qawlika ci boo boo nee ibni sama doom ji akramaka teral na la ibni yaaw mutakallim deesu ko tàmbalee wax du topp ci illa illa ye kenn du ko ah kaaf gi ci akramaka teral na la ka ajooju muttasil la ndaxte munul doon mubtad te it mënul topp ci illa lu dul illa ki day yaarun jooju nga xam ni nag kooku du ixtiyaar wal yaa i ak yaa wal haa ak haa min qawlika ci boo doon salihi yow ndaw si laajal waaja ma malaka la mu moom laaj ko yëfam bu ko laaj lu mu moomul salihi yaaw mutakallim boobu du doon faa'il moom la ñuy wax yaawu taf'aliina du dëgg mooy dami yaa bu nekkee damiru muannas di jokk ci fi'lu mudaari kooku yaawu taf'aliina lañ koy jox su ko defee bu lamar jëdikee ni ki sali laajal ne ndaw si muy noonu kooku yaa googu du doon mubtada du topp ci illaa nga ni wa kullu mudmarin lahul bina yajib fa lafdu ma jurra ka lafdi ma nusib wa kullu mudmarin bépp damir dégg nga moo xam muttasil la munfasil yajibu day war lahoo ñeel ko al binaa u binaal fokk ñu binaal ko ndax dafa niru xaraf lu dëgg niru xeetu niru araf ya dana ca àgg shabahul wad'i fis may jitana ni ki tey loolu façon niru xaraf la danañ ko leeral ci kanam ah yajibu lahul bina li annahu ashbaha al xarf te lisin bu gàccaayee yemul ci niru fiil nu di ko xañ piiru liraab def ko maalaayam sarif dootu am tanwin dootu am jaru kasra kon gàccaay njoogaanu liraab lañ ko jox waaye ba tey daal liraab nañu ko aywa xanaa wàcc nag ba niru xaraf ñu xañ ko liraab di définitif benn yoon def ko safaanu liraab binaal nde nde lismu baada tarkib imma mu'aradun wa imma mabniyun ñu def wala mën nga ni alkalimatu sax pour damir yajibu day war la ñeel ko albina ndax dafa niru xaraf comme dañu koy binaal nag fa lafzu ma jurra lafz ba nga xam ne lu ñu jar la ka lafzi ma nusiba moog lafz ba nga xam ne lu nekk place nasab la ñooy yem de lu ñu binaal nag suñu la ne maa jurra la ñu jar bi maanaa la nekk place su jara ko tax di wax de li si mënoo ni dañu koo binaal neeti dañu koo liraab du dëgg suñu nangu woon ni dañoo jar dam damir ji waaye waaye kon nangu nanu ni dañ ko liraab li annal jarra iraabun du iraab ñeenti tur la gu kooku mooy benn xeet waaye bi maanaa wa lafzu maa jurra lafzu damir ja nekk place su jar ka lafzu maa nusib moog lafzu damir ja nekk ci place su nasab ñoo yem loolu mooy maanaa wa lafzu maa jurra ka lafzu maa nusib su ko defee li rafi wa nasbi wa jarri naa salax amma baatu naa fa yasta fa maanaam fa yasluxu lil mawaadici thalathati place u rafa place u nasab place u jar naa moom mën na ca ne boo ne rabbana innana amanna rabbana naajo ba rabbana lu mu doon ci naa mudaaf naa damiru mutakallim maa gayrihi du dëgg place u lan la ne jar nga seet ni naa naa nga wax de nga ni nag inna naa inna lu muy def lisim rafa lisim nasab lisim rafa xabar kon place u nasab la in in naajee nekk seet ko moom naa ji seen laf sa wuute a dégg nga rabbana place u jar la nu waxoon de waaw amanna amana feelu maat la naa ji mooy faayilam place u lan la ne ñetti laf sa yooyu wuute nañ loolu mooy fa lil rafi wa nasbi wa jarri na naa mubtada la salaha jumla jooy xabaram baax na programme nekk li rafi wa nasbi wa jarri taarif xamal bina ci nun bina fa innana nel na am nanu moog aman naa yam naa la feelu maat la ndax am nanu al minaxa jamu minxatin mooy maana al atiya may ay may nil na am nanu al minaxa ay may wa alifun والواو والنون لما غاب وغيره كقاما وعلما يار الضمير يت يوخاني نيوم مانا يت الضمير day nekk ñeel loo xam ne xaayib la ñeel loo nekk ci xaadir lu teew ak lu teewul lépp dégg nga mooy wa alifun wa noonu wal waaw wa noonu li ma xaaba ñeel na lu fi nekkut nga ni tey daraba dóor nañu ñoom ñaar darabu kooku fiilu xaayib la ñu ngi kon wala nga def ko mana wala nga ni idriba dóor leen yéen ñaar ah ñi ngay waxal ña ngi fi xa xayru xaayib la wal waawu noonu soo ne qaamu taxaw nañu wala nga ni leen quumu taxaw leen nuunu nga ni nisaau qum na taxaw nañu maanaa yaqum na danañu taxaw wala nga ni qum na yaa niswatu fa axaan waaw kon nag li ma xaaba wa xayrihi waaye nag li mën a nekk dong la koy misaale de mooy xa mooy xitaab déggoo mu ne ni ki boo nee xaamaa taxaw nañu ñoom ñaar waala maa xam leen yéen ñaar kon nag xayrul xaayib na nga xam ne xitaab dong la ci jublukat ni ki ilamaa xam leen kon nag dafa ni li maa xaaba wa xayrihi xayrul xaayib ah mooy takallum ak xitaab du yaar la masa doon xaadi xudóor mu yaar la takallum ak ak xitaab waaye takallum taxu koy wax nag kon zaahiru xayrihi zaahir si mën na la defeloo ni kon yooyu damir danañu nekk itam li li takallu duñu ko nekk nag abadan moo tax walaw qaala wa alifun wal waawu wa nuunu lima xaaba wa xuutiba ka qaamaa waalama la kaana sarixan fi lmuraad kon day fis ci li ñu bëgg a wax ndax wal muraadu bihi lmuxaatab rek amma takallum kay yooyu doon duñu doon wa min damiri rafi ma yastatiru kaf al waafiq naqtabit istashkuru damir mustatir dañu koy wax damiru rafa nag ne am na ci yoo xam ne yastatiru daiman kooku kooku waajibul istitaar ndax damir dafa am mustatirun wujuban am mustatirun jawazan damiru rafa am na ci loo xam ne day nëbbu ni ki soone if al defal ma ma ñu comme ni mu waxoon ci muqaddima ma rufia bi amril waxid if al anta ji du feeñ mukk wala yaxlufuhu lismu zahir mukk soo defee waafiq na dëppoo yow fi'lu mudaari'u lil mutakallim damir bi muy rafa du feeñ mukk lismu zahir mënu ko remplacer mukk soo ko defee naqtabit nu kontaan damiru mutakallim ma gay maana fi'lu mudaari'u ma gayrihi lil mutakallim ma gayrihi damir bi muy rafa du feeñ lismu zahir mënu ko remplacer istashkuru ba ngay sant damiru menn góor gu ñuy waxal mu xaatab ni ki tadribu yaa tadribu yaa rajul tadribu jooju góor gu ñu janool di wax moom ko aywa kon kookoo tam anta ji muy nag du feeñ mukk yooyu kat mooy damir mustatir wujub ñeent yooyu feelu amrul waxid ni ki ifal wala feelu mutakallim mudaari lil mutakallim waafiqu wala ma mutakallim ma gayrihi naqtabit irtifaain wa infisaalin anahu wa anta walfuruucu la tashtabihu wa zu irtifaain damir jadi boroomuk rafaa u jane place u rafaa wan fisaalin tedi boroomuk facc maanaam damir boo xam ne marfuu mu munfasil la yii la ana man huwa moom anta yow yett yooyu wal furoo ak seeni banqaas yay jokk ci ñoom la tashtabihu alayka du la lënt mën nga koo xam faru ana waaxid anta faru huwa arbaa ñeent hiya huma ah hum hunna ñeenti faru la am ñuy juróom ana benn faru la am ñuy ñaar juróom ñaara ngoog wa anta dégg nga am na ñeenti faru anta anti antuma antunna dégg nga ah ant waaw anta anti antuma antum antunna juróom ak juróom-ñaar muy ñaata fukk ak ñaar damir jeex na tàkk fukki damir ak ñaar dong nga am benn de du dëgg waaye nag soo gisee ñu mën ko yóbbu ba ni damir juróom benn fukki xaaj la dafa fukk ak ñaar la yoo xam ni bo boo jëlee juróom multiplier ko maanaam fukk ak ñaar la fukk ak ñaar yoo xam ni mën na nekk ci marfo mën nay damiru rafa ànd ak jokk mën nay damiru rafa ànd ak facc de bu dee damiru nasab itam mën nay ànd ak facc mën na ànd ak jokk bu dee damir bu nekk ci balaasul xafat jokk rek lay man du mën a facc du dëgg soo ko seetee ak seen mawaaqi li arab nag mooy mooy tax ñu ni mën na juróom benn fukki xaaj ndax fukk ak ñaar su ma soo ko andee ba muy juróomi yoon lu muy doon juróom benn moom la ni bi nga xam ne day damir rafaate di munfasil ana ak huwa ak anta wal furoo ay banqaasam la tastabi aleyk mooy yooyu ma lim su ko defee nag danañu nekk ci barabu rafaa danañu nekk ci barabu nasab mën nañoo nekk ci barabu xafat dégg xanaa damiru xafat ca ba muy facc daal moom moo munta am damir bu fekkee barabu xafat la ne fokk dana jokk ci dara benn nag mu jokk ci xaraf ni ki mararta bii ci man baa bi xarafu jar la wala mu jokk ci lisim ni ki fulaanun xulaami sama xaleeha mu muy mudaaf ilay waaye jokk dem àllu boppam munta am ci damir dégg nga mun maanaam facc laa ni nekk àllu boppam facc ci àllu boppam rek du mën a am damir damiru xafd laa yakoonu munfasila lu dëgg muttasil bil ismi wala bil xarf muttasilan bil ismi bil idaafa wala bil xarf bil amal wa zu intisaabin fi intisaalin jucila iyaaya walfuroo laysa mushkilan wa zu intisaabin boroomul nasabu ci damir koo xam ne place u nasab la ne fi infisaalin ci tàngu facc kooku mën na am damir mën nay mansuub tey munfasil kooku def jucila def nañu booba lafdu damir mu di baatu iyaaya rek iyaaya dong lay mën doon war tafriu banqaasal iyaaya ba mu mat fukki damir ak ñaar nag laysa mushkilan alayka mun la lënt iyaaya mooy ba nga nee ana amoon na benn far nga ni iyaana aywa ba nga nee iyaahu am na ñeenti far xam ngeen ko ba nga nee iyaakaat am na ñeenti far wat wa fi ixtiyaarin bu dee ci coobare du lor way du dara wala yajiu du ñëw almunfasilu damir bu facc fi ixtiyaarin ci coobare xanaa ci lor way tax dégg nga ci kaw ida ta attaandeem dafa jàppandi an yajia di ñëw almuttasil bu jokk place boo xam ni damir muntasil mën na fa ne kenn du fa indi damir munfasil ci coobare lu tax li anna damira mawduun lil ixtisaar ndaxte mawduu damir bëgg gàttal wax dong nga tax ci làkk yëpp kat du du arab dong waaw su fekkoon dama la ni su ma bëggoon a wax téere bi te fokk téere bi mu